internet bi. bu bari yu bëri bu bari. xam nga mënoo suivre yëpp bu bari. yow lan la lay def. euh xarona quoi. Ah. parce que parce que bi may def projet bi. mine de rien am une équipe derrière quoi. tu vois et puis euh, am naa chance am am am public bu large c'est-à-dire euh, am naa public bu bu bu bëgg rap bu xaat bu <laughs> underground tu vois amna public bo xamanteni bëgg nañ ay délire ngaa ko blende amna public bo xamanteni c'est des sénégalais yo xamanteni ils n'ont rien à voir avec le hip hop quand je dis le hip hop le rap à vrai dire duñu ay nit yo xam dañuy suivre rap mais dañuy mhm. bëgg ngaa ko blende quand tu vois les maires maires nit ñi so waxé ñu né ngaa ko blende moy artiste maire tu vois ngay def ay morceaux bon je dirais pas man kese mais bokk naa ci artiste yu def ay son yoo xamante gars dañ koy teg ci ngénte yi dañ koy ci hmm? tu vois voilà parce que parce que parce que loolu quoi après nag sooy dem bay def projet aussi dafay am direction ak style hmm. tu vois su may def un album digne de son nom damay fexe album bi fexe qui koy waxee tous ces sénégalais yëpp ci catégorie bu nekk mais bi may def EP bi eh, dama ko def ci contexte boo xamante ni hmm. bëgg non seulement hip hop gis sen bop mais bëgg naa aussi benen public bo xamanteni c'est pas un public hip hop. gis sen bop après c'est normal. <laughs> peut-être li hip hop bi di gis seen bopp. nit ñi dinañ ne woy man bi son la préféré préféré mo bi bëgguma lii bëgguma mais xaron naa ko puis c'est pas la première fois may def ay son yo xamanteni hip hop. Galsen non non, laa ko mën waxee ah duñ ko valider à à 100 quoi ouais c'est pas la première fois voilà parce que je me rappelle période bi may def le le morceau tàcc ma tàcc ma. je me rappelle amoon na ay animateurs sax yoo ne yoo xam ne dañ duñ teg son bi parce que du rap mais après bi son bi jëlee yoonam. <laughs> voilà game aussi <laughs> voilà parce que je sais pas si me charme la oh. quoi <laughs> dafay affaire au xamante à vrai dire dama koy def d'une manière vraiment basique quoi. Ah, tu vois voilà après waaw def ko mu basique. après gars yi mën a dugg xam nga dugg ci jaaykatu tu vois. dugg ci xam tu vois. <laughs> voilà après quand il s'agit de de de de def benn affaire boo xamante rap la comme on dit. xam na nu ñu koy defee te loolu nekkatul sénégalais yi dinaa table quoi. Eh, merci.